Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Tidiane. naka mm, sa euh, weekend sa da nga teel a jël repos. bon man xam nga man weekend bi damay nekk ci rédaction bi damay nekk ci liggéey bi <laughs> maa ngi lay fay bu baax a baax. liggéeyoo jeudi liggéeyoo vendredi <laughs> voilà. baal ma nuyu Chérif Fatkine ak euh, Marcel euh, ak Malick donc nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média ñu door. ñu door ci xëcc yu njëkk yéenekaay yi commencé ko ak l' li mu xëy bëri na bokk na ci conseil yu ministre décentralisé Tambacounda lëbbu euh, maquillage lu mel rek daal di xëy fësal lépp lu ñeel wàllu tourisme wàllu wér-gu-yaram ak itam li nga xam ne nag moom moo di wàllu artisanat ba sax lépp lu ñeel wàllu xëy ndaw yi itam euh, njort nañ ne dina doon loo xamante ni daas ko waxtaanee foofe ak itam ñaar téeméeri milliards ak euh, ñeen fukk ak juróom-ñett ci ay milliards d'investissement face à la déception des acteurs lu ni mel mu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di ñaareelu ponk bu l'observateur l'observateur itam leneen ci loo xamante ni euh, xëy na ko fësal bokk na ci euh, waxtaan wi nga xam ne séq na ko ak Moustapha Dieng lépp lu ñeel itam euh, audience wi nga xam ne nag gouvernement wala boog njiit mu réew mi mayoon na ko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di rappeurs yi ak itam la nga xam ne moom la jur lépp lu soxal itam wàllu waax yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di dem ci géej gi li ñuy dund bari na lañ cay gis itam bari na yenn ci ay témoignages yoo xamante ni nag yenn nappkat daal nañ koy def mu ngi ci li nga xam ne moom moo di page huit bu l'observateur beneen page huit ba tey euh, jàppale itam ak waxtaan boo xamante ni euh, séq na ko ak directeur général sona euh, SONAGED SA Mass Thiam mi nga xam ne itam. mi ngi wax rek lépp lu ñeel wàllu mbalit meeg yorin bi ak yeneen yu ni euh, xeetoo ca ginnaaw raay moom jàppal ne euh, ñaari euh, doomu réew yu Mali yoo xamante ne yow ndam tënkoon nañ leen foofee violé leen ba ak guddi maanaam durant toute une nuit lu ni mel rek daal di xëy fësal mu ngi ci li nga xam ne moom moo di page cinq bu l'observateur ginnaaw page cinq bu l'observateur ñu wutali beneen ak yéen a kaay bés bi le jour bés bi le jour di kaat ba tey ci rapport fësal wala boog rapport blanchissement de capitaux et financement euh, du terrorisme euh, la rek daal di xëy fësal alerte rouge pour le Sénégal lu nu mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bu bés bi euh, le jour bés bi le jour itam xëy fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di njiit mu réew bi président Macky Sall ak itam Ousmane Sonko la ñu wax itam daañ ko gën a faram-fàcce léegi léegi. ñu dem ci enquête. enquête dikkaat bu baax a baax ci rapport wi fonds force Covid 19 lépp lu ñeel itam une politisation du dossier lu ni mel la rek daal di euh, xaatim ci li nga xam ne nag moom moo di xët wu njëkk wu yére kaay ñu dem ci laas. laas dikkaat bu baax a baax ci njiit bu réew bu Sénégal gan wi nga xam ne itam ma ngi koy amal ca diwaan bu Tambacounda mbooloo mu takk wi nga xam ne itam euh, teertu nañu ko niki démb gis nga ko noonu ak itam convoi wi nga xam ne euh, moom moo nekk ci kanam keneen koo xamante ni mu ngi féete ci mouvance présidentielle di maître Aïssata Tall Sall wax na itam ci lépp lu ñeel wàllu euh, li nga xam ne nag euh, moom moo di ñetteel bi mandat fii ci réew bu euh, Sénégal lam ca toftal bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di le décompte du mandat commence avec la nouvelle constitution lu lu mel ay kàddoom la yoo xamante ni mi ngi ko yëkkati ñu daal di koy xaatim ci page six bu las wile. ñu dem ci le soleil. le soleil di kat ak kàddu yi nga xam ne nag monseigneur Benjamin Ndiaye daal dina ko yëkkati mu ñeel lépp lu ñeel wàllu jàmm xoxatal wi nga xam ne itam xam ne ñoom ñoo di euh, soxna yi mu nga yëkkati ay kàddu dal di artu askan wu euh, Sénégal ay kàddoom yoo xamante nii mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 10 bu Le Soleil. Les Échos di kat ci dossier mbirum Sweet Beauté ba tey xam nga ne mbirum Adji Sarr euh, ak itam Ousmane Sonko pënd mi wuréegul ba tey doyen des juges a presque bouclé l'instruction mu mel ni itam daal na tënk lu mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 4 leneen ci loo xamante nii daal nañ koy fësal muy rapport wu jur coow fii ci réew bu Sénégal moom Ousmane Sonko joxoñ baaraamu tuuma lu toll ci euh, juróom-ñeenti ministère yoo xamante ni njort nañ ne euh, laale nañ ci moom Ousmane Sonko lupp leen benn yoon euh, mi ngi ci li nga xam ne moom moo di les échos. libération libération ku ne miin turam ci li nga xam ne nag moom moo di xar géej gi moom kun kànde di wuyoo ci turu li nga xam ne moom moo di Amadou Julde jàlloo moom moo di turam dëgg xam nga ne section bu recherche wu Thiès daal nañ koy teg yoxo ca diwaan bu Saly moom ak nga xam ne nag moom moom la àndal ñu gën koo xam euh, ci Ibrahima Niass euh, moom mi ñu woowee sant yàlla nag euh, jàppal ne lu toll ci juróom-ñaari millions yoo xamante ni jëloon nañ ko ci doomi aadama jàpp ne rek dañ ko soppi lu toll ci 700 millions de francs CFA lu ni mel ñu ngi ko tënk ci li nga xam ne nag moom moo di li nga xam ne moom moo di libération Cheikh Tidiane leneen ci loo xamante ni xëye nañ ko mu ñeel mbirum Sweet yi ba tey jàppal ne SAMES di sàkku ci gouvernement bu Sénégal saytu wala boo xeltu wàllu wér yaram bu baax a baax lépp lu soxal sécurité euh, maanaam kaaraange bu euh, docteur Alfousseni Gaye euh, gynécologue SAMES moom mooy rek artu ci mbir mu ni mel leneen ci loo xamante nii daal na ci xëy fësal mu ñeel mbirum trafic bu cocaïne douane frappe au cœur de la filière gambienne du ni mi ngi mel mu ngi ci li nga xam ne moom moo di libération libération itam ak itam mbirum ki nga xam ne moom moo di Pape Alé Niang le journaliste dans un état critique maanaam wérgu yaramu ki nga xam ne euh, moom moo di euh, Pape Alé euh, sutante ne lool moom milee nga xam ne daal nañ koy évacuer ci hôpital bu principal mënees ko lire ci page 3 bu Libération. dem ci Vox Populi. Vox Populi di kaat bu baax a baax ci kilee nga xam ne moom moo di professeur Amadou Niang coordonnateur. bu al Khadimia ak itam envoyé spécial bu personnel bu Kara parle du trente 31 décembre moom noomee nag la ma xam xamle moom moo di sant Serigne Touba képp dong doy na ñu indi li nga xam ne nag moom moo di mbirum concert wu casserole ak yeneen ñu xeetoo ay kaddu la yoo xamante ni itam daal na koy yëkkati ñu faram-fàcce lenn ci ay kaddu yoo xamante ni nag maître Aïssata Tall Sall daal dina koy yëkkati la question n'est ni juridique ni politique dikk mu ñeel ñetteel bi mandat fii ci réew bu euh, Sénégal Cheikh Tidiane. ñu dem ci le quotidien. le quotidien moom jiit mu réew mi daal di joxoñ baaraam wutali li nga xam ne nag moom moo di bëgg-bëggu askan wi lenn ci loo xamante ni daal na koy naal fii ci réew mi rawatina diwaan bu Tambacounda wi nga xam ne ci la jamono ma nga fa ngir amal aw doxub nemmeeku. ñëw ci euh, journaux tàggat yaram yi tàmbale ko ci record. record lañ koy xëy fësal journal bu euh, groupe Futur Média wile local woo xamante ni itam dafa rek magget ak itam lépp lu ñeel ñàkkum kaaraange wi nga xam ne nag ñu ngi ko fay njortu jàppal na fédération sénégalaise bu euh, football dina tuxu fa nga xam ne nag moom moo di ca Liberté 6 extension lu ni mel mu mel ni nag record moom moo ko rek daal di fay fësal Angleterre Chelsea ak itam Boutmout euh, lu ni mel Bourmout na ah? noonu la Cheikh Tidiane Bornumus nanda Bornumus Bornumus voilà exactement à 17h30 minutes Mendy ak itam euh, Koulibaly pour un nouveau euh, départ aw laaj la woo xamante nii daal nañ koy samp moom record ginnaaw record ñu wutale beneen ab yéenekaay Ah, source A dafa mel source A ah, dikkaat record dafa teel a ñëw bu baax baax record dafa teel ñëw ak hmm. itam lu ñeel structuration bu Yewwi Askan Wi un nouveau pas posé lu ni mel ah, source A moom moo ko daal di fësal ak itam ki nga xam ne nag moom moo di ki fi nekkoon jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ma njiit mu réew bu bu Sénégal ca diwaan bu Tambacounda lépp itam source A daal na koy xëy fësal. jëm ak itam maanaam ñaancoo xam nga ne boobaak léegi. mi ngi rek euh, tëdd jàppal lu toll ci juróom fukki fan yoo xamante ni euh, daal na koy am ci infirmerie bi maanaam cinquante jours yoo xamante ni euh, mu ngay wéy di ko tëdd ba tey moom Mané Niancho ginnaaw bi. sunu lamb sunu lamb la ñu jeexalee ak open press wi nga xam ne Boy ñaa ak itam Balla Gaye xam nga ne war nañoo laale moom Boy Niang la mu doon amala ca Alassane jigo nit ki démb nee na waa ji teg jël na jël bakkanam wala boog moom mu jël li nga xam ne nag. moom moo di euh, bosam sunu lamb euh, moom moo fësal lu ni mel pàcc wu njëkk wi nga xam ne nag moom moo gënoon a fës euh, ci li yéen kaay yi xëy fësal ñaareelu pàcc yi ñu dikkaat gën koo faram-fàcce baax ko mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média léegi léegi incha allah après lay doon mais Cheikh andil ma l'Obs wala quotidien